ponk bi ñuy waxtaan nag mooy walu nyakugi, euh, gi ku ne xam na ni wàllu ñàkk gi ci mbas mi ci jamono ji ñuy na coow naka def nag ba ñàkk gi ak dal ñëpp mën cee gindiku ba mën xam bu fekkee am na ngëneel mbaa lorange euh, ponk yooyu nag la ñu fas yéene waxtaanee dañ ci ànd ak professeur Daouda Ndiaye euh, moom xam-xamam waaj màcc na ci wàllu kër docteur naka noonu itam docteur Amadou Sow moom itam xam-xamam màcc na ci docteur professeur ngi lay nuyu. Papa Ngagne maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi nuyu sama naataango docteur Sow di également di nuyu ñëpp ñu lay déglu ci RFM. voilà ñu fàttali ne parasitologue nga spécialiste nga ci gémonique ak euh, gémonique infectieuse euh, docteur Amadou Sow ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu Pape Ngagne. Euh, ñu fàttali ne yow médecin conseil nga ci agence nationale bu couverture maladie universelle. docteur ni ñu ko waxee tout à euh, ku ne xam na ni ñi ngi jëm ci ñàkku ndax euh, président de la république euh, wax na ko ci génnam bi nga xam ni moom la mujj a génn ne loolu moom mënu la ñàkk te bu ñu gisee yenn réew itam ni nga xam ni noonu lañ ko noonu lañ ko doxalee mën nañoo njort ne askan wi ñàkku mënul ñàkk lan nga mën a indi ci loolu ndax ñàkku yàgg na fi waaye ñàkk vaccin bu juree nii coow amu fi xëy na kon jombul kon mbas mi moo moom moo ko waral ban analyse nga ci mën a def ak lan nga ci mën a wax ci wàll boobu waaw jërëjëf Pape Ngagne di la nuyu nuyu rapidement sama vis-à-vis professeur dañ Ndiaye di nuyu say auditeurs comme ni nga ko waxee effectivement ñàkk moom dafa yàgg dafa mos di jur coow rawatina nag bii nga xam ne ci pandémie Covid bi la am. Mhm. maintenant coow boobu li ko waral nag euh, mun nañ ko résumer ci ñaari point benn bi mooy le fait que technologie bi ñu utilisé nekkut luñ miinoon même si bu fekkee ne scientifique yi ko def ñoom ay ñaar fukki at ci daan nañ ko def mais mosuñ ko utiliser en tout cas jaay ko. Mm-hmm. beneen bi bi nga xam ne moo indi coow bi mooy am na ñuy véhiculer ay information yoo xam ne soit dañoo xamut di wax soit dañoo xam bëgg a yàq moo tax ñuy wax mm-hmm. donc ñaari point yooyu moo tax coow bi ci am am ci maintenant bu ñu ñëwee nag pour dindi coow boobu noonu on se pose les bonnes questions et après on aura les réponses mm-hmm. par rapport à la technologie bi nga xam ne moom la utiliser muy ARN messager Mm-hmm. depuis longtemps maintenant je pense que les tous les professionnels de santé wala les populations elles sont intéressées par l'information. pour nañ mm-hmm. accéder sur ces informations là pour xam la technologie ndax parce que vaccin buñ ko sur trois euh, niveaux. Mm-hmm. ndax efficace na mën na faj ndax du ndax qualité bi baax donc pour l'instant, même si vous faites une état yi nga xamné ne lañ respecté wuñ ko parce que délai yi respecté wuñ ko te loolu aussi y a des justifications y a des explications yoo xam ne xel mën na ko nangu science mën na ko nangu yooyu moom moo ci am moom moo tax délai boobu bi nga xam ne ñu koy natt ñu bëri dañu naan vaccin il faut dix ans il faut tant d'années mhm. mais duñ xóotu ba dugg ci biir lu xam xam lu tax bii délai boobu noonu respecté wuñ ko mhm. donc pour jël rek ci innocuité bi de parce que am na ñuy wax problème mutation mais je pense que bu ñu xamee wàllu génétique ni muy demee ci ARN lañu utiliser ARN mënul soppeeku joxe ADN te l'inverse ADN moom mooy joxe ARN te fii ARN la ñuy dugal ARN bu duggee. mais li nga li nga wax dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a technique soo ma mënee baal rek su fekkee mën nga ko gën a leeral. pour ñu mën ko comprendre waaw. c'est-à-dire procédure bi nga utilisé mooy dañuy jël euh, nu mu tuddati virus bi. Mhm. dafa am loo xam ne nit ci nekk dafa am lu ñuy wax génome. loolu mooy pratiquement mooy sa carte mooy tax sa yi bu bu xonqee parce que génome bi dafa war dañoo wax ne dafa war a xonq. Mhm. loxo yi bu laboratoire xam nañ ci virus ñu jël séquence boobu dugal ko ci cellule bi wax suñuy cellule maintenant mu defar ay anticorps ay protéines boo xam ne virus bi bu doon dugg foofu lay jaar d'accord donc foofu li ci am solo rek mooy technologie bi nga xam ne moom lañu utiliser ARN messager boobu nekk loo xam ne mën na modifier wu dugg suñu ADN pour yàq ko mais bu duggee at day day defar benn kii boo xam ne moo tax virus bi bu ñëwee mu après ñu mën ko euh, xeex ñun d'accord donc pour pour man en tout cas gëstu yu ma si jotagum mooy ne loolu technologie boobu innocuité boobu amul d'accord maintenant nag leneen li ñu war a am mooy comme médicament yëpp euh, am na ay effets secondaires yoo xam ne mais bu ñuy dogal ne dañuy vacciné wala bu ñu vacciné wu damay jël garab wala du ma jël garab da ngay évaluer risque contre bénéfice te yooyu yëpp bu ñu ko évaluer gis nañ ne. bénéfice moom amoon am na ko. information bi ci bees mooy am na ci boo xam ne depuis 31 décembre OMS bi nga xam ne moo tënk wàllu santé ci àdduna bi homolo euh, homologué na euh, vaccin boobu noonu mooy bu Pfizer bi. voilà depuis le 31 décembre. d' accord d' accord dinaa ñëwaat ci yow professeur Daouda Ndiaye ñi nga xam ne dañuy am lu ñu ci ragal ndax euh, délai bi ndax ku ne ñu bari dañ doon njort ne vaccin parce que loolu lañ daan gis. Euh, dana jege ñaari at nga mën ko am bu ci baax rawatina nag jamono boo xam ni virus bi ñuy xeex ñii dañ naan nii la mel fii nii la mel fële ndax benn vaccin bi mën na régler problème yooyu yëpp ndax loolu warul mën a tax mënul indi ci tàngee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ragal. waaw d'abord Pape dama lay gërëm di euh, di wax ne euh, dëgg la vaccin moom il faut d'abord ñu nangu leen. Mhm. xeex yu ñu def yëpp ci àdduna buñ ci amee ndam vaccin bokk na ci li ko lijjanti. te stratégie la boo xam ne mënul def lu dul li gën bu fekkee jaar na fi war a jaar yëpp donc man li ma gëm mooy euh, vaccination moom euh, arme la boo xam ne rek dafay dafa war a ñëw pour dolli nit nit ñi euh, mhm. dundal ci ci li ñuy liggéey mhm. maintenant effectivement ni ni ko docteur Sow waxee xam nga ñun li ma wax c'est-à-dire que parfois li tax muy xaw compliqué mhm. dafa laaj yenn dal yu bari ci wàllu ci li ñuy expliqué ci lu bari Euh, parce que bi ñi ko ñi nga xam ne ñoo liggéey ci essais vaccinaux yi wala ci wàllu génomique euh, euh, ci affaire affaire mutation lu bëri suñ ko xamee jot ko dina mën a yombal lu bari bari pour expliquer lu bari parce que effectivement nit ñi quand même li am am solo mooy boo xoolee même sur le plan scientifique dafa am divergence c'est vrai qu'il y a une technologie on parle parce que fi ñu doll moo xaw a doy génomique la moo moo fa lañ toll nañ et du science bu yomb euh, yàlla def na ne man juróom-ñetti at ci ci euh, ci ci ci yu bari ci mutation et de donc dafa am solo toujours parfois également nous ñu euh, même yenn termes yi utiliser il faut les utiliser avec prudence parce que buñ ci juumee rek mën indi un étudiant toog wala keneen ñoo dañuy véhiculer message buñ leen li ñu déposer problème. Mhm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, communication, nous pouvons simplifier. gën ko yombal accessible à la population également les ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam màcc na ci loolu. loolu ban communication ngay wax ban communication ngay wax ban la ñu yombal. parce que fi mu nekk nii bu dee vaccin bi la moom pare na daanaka daanaka. waaw moom moo c'est-à-dire que aujourd'hui euh, hmm. xam nga ministère day ñoom am nañu euh, seen seen kuréel yu koy liggéey. Hmm. yàgg nañ ci liggéey par exemple. Euh, population bi bo ñom bu ñu doon jël ñom dañuy vacciner par exemple ben partie de la population population bobu dafa dafay jar ñom aussi bien population bi que képp ku nekk ci kër docteur nga xam ne yow même bu sa xel màcculee mais le fait que yow da nga ci liggéey war nga am information yu yu nga xam ne leer na surtout comme je li ma wax andi ah, que loolu te loolu mooy lii li li base bi médicament bu ñu koy créer noonu mooy base bi vaccin loolu mooy base bi mhm. gis nga et puis wax pourquoi on a fait telle étape parce que tout le monde, nous avons obligé pour ramener le vaccin de 400, pour essayer de, de médicaments. 1, 2, 3, 4. Vous quelque chose de nouveau, de, de, parce que les gens aujourd'hui ont parlé de l'approche génomique. Nous avons nous avons parce qu'effectivement, nous avons ramené le génomique, mais nous avons des clones. Et bon, nous avons des clonages. Nous avons des clonages, nous avons des clonages, nous avons des inventions, nous avons des informations. Donc, nous avons des informations, même le docteur, nous avons des informations.

bu ñu jékki-jékkee dégg li nga xam ni mooy vaccin est-ce que dina yomb pour ñu mën leen a yey ba mën leen a ñaq jël ñaq dugal ko seen yaram est-ce que yaakaar nga loolu dina yomb itam. Euh, du yomb loolu moo tax ñu war a nag mesurer euh, l'ampleur de la tâche et que ñu def li nga xam ne moom la ñu a def en tout cas bu ñu defaat erreur yokku ci. et je rejoins le professeur Daouda Ndiaye ci li muy wax ne il faut que ñu joxe les bonnes informations d'abord. à la population population bi ñu ci jiitu instant bi mooy les agents de santé yi nga xam ne ñoom ñoo war a le message euh, war a expliquer il faut que ñu am toutes les informations comme ni ko professeur waxee yàlla jagleel na ko loolu lay liggéey xam na ci lu nit ñi xamul mais am na ci yoo xam ne yenn détails yoo xam ne peut-être kaneen ministère ban vaccin lañ commandé ban technologie la vaccin boobu utilisé tant que ñoom joxewuñu affaire boobu peut à la périphérie mën a am la bonne

l'agent de santé ñu jéem réduire au minimum ces zones d'ombre là pour que nous mën un message clair pour les populations. parce que les nit ñi ont ñu amee lu après le plus souvent nit ñi ay le lañ dox xam nañ d'accord.

Euh, encore une fois di remercier collègue bi me remercier parce important li mu wax li wax communication spécialisée bi mais ñu ko à tous les niveaux y compris le corps médical donc man dama euh, muy ministère muy commune la preuve du contraire li def pour njëriñu askan euh, muy nit yor sa di def niveau d'information, comme ni ko parfois information boo amul rek la nature en rôle du mhm. boo xamul li ngay wax parfois te nga te war a wax day poser problème mais damaa jàpp ne pour man tout ça tout ça li gëm am mooy xool ba gis leneen li nga xam ne jur na leneen c'est vrai que l'anticipation est importante mais dama jàpp ne encore une fois contexte mbas mi ñu toll nii euh, ay exception rek nga nga ngay gis lépp a jaxasoo lépp ci changé par rapport à beaucoup de choses la wu ma dara invalidé wu ma dara mais damaa jàpp ne rek boo nekkee ci réew. Mhm. njiitu réew wala ñi yor ñàkk réew mi wala ñi koy diriger. dañu am njort ci ñoom ci li ñuy def parce que gëwuma ne ñoom nit ki war na leen gën a bëgg seen réew. Mhm. donc am na information yu am ñun amuñu ko keneen amu ko. Mhm. parce que moo tax ñenn ñi di réagir. et c'est pourquoi encore une fois on insiste sur l'information je pense que mhm. il faut que les gens communiquent et communiquent très bien ñi nga xam ne ñoo yor information yi. comme docteur Souley Daale comme docteur Sow détail yooyu c'est important parce que parfois ki xamul wala ki bëgg a yàq day xool fi nga xam ne jotuloo ko mu wax fa leneen te yow amuloo information bi. donc mhm. sans fond laa rek dina mën a liggéey ci lu bare bare. Mhm. mais léegi est-ce que loolu dina yomb aussi professeur parce que parfois nga dégg ministère wax lii président génn wax la ca des léeg-léeg est-ce que loolu itam dina yombal euh, communication bu baax jëm ci askan wi. gis nga euh, euh, gis nga Pape. Mhm. dañuy wax dëgg yàlla tax. yaakaar naa ne gis nga en matière scientifique waxuma sa affaire ministre président ak ministre bi gis nga même scientifique yu nekk wala kër docteur da ngay gis ñu naan ñu réunion pour de staff dinga gis juróomi docteur ne waaw ñaar ñu ne déet mais effectivement du loolu génn c'est que pour une première fois mbas bi indi na man situation boo xam l'information est véhiculée quotidiennement parce que c'est important et c'est normal mm-hmm. mais réellement très souvent nit dina wax lii tey par rapport à ça pas changer d'avis mm-hmm. changer d'avis c'est autre chose mais gis na noonu gënul ñu changer parce que ah Vous euh, bu la ci muy sama morom muy keneen loolu li am ba am stratégie dañ koy dañ koy améliorer. mën ministre mhm. président de ci en vingt heures mu gis leen ma ci ñu leen ñu leen di li xew. mais mhm. loolu laa dit que noonu lay demee. non dafa feeñ rek ci affaire vaccin bi loolu dafa feeñ rek ci li ni ko ministère bi gisee ak ni ko président waxee itam. waaw peut être peut être que cest à parfois xam naa pression bi ñuy jot je ne personne. Mhm. universitaire et je indépendant mais parfois il des pressions qui, les pousse parfois à donner des informations. Et encore une fois, pour moi, l'information évolue. Je me dis, l'information mais des Parce que ce li nga wax est par rapport à la progression mais par rapport pas par rapport à ce naa démb waxatuma li de c'est autre chose. mais par rapport à l'amélioration des stratégies, d'accord également euh, dans les choses plus efficaces. d'accord professeur alors docteur Amadou Sow ndax war nañ ci egg par force parce que de mel ni ci la que jëm de wàllu santé moom par force amul tant que nit ki mu ngi ànd ak xelam di mën a décider boppam amuloo lenn te dundam nekkul ci danger mënoo ko def par force. Mm-hmm. mais tant que mu ngi ànd ànd ak xelam même bu fekkee ne dafa war a dee te wóor na ko mënoo ko forcer dara loolu moom na leer ci bopp ñëpp te amul benn médecin wala benn agent de santé boo xam ne yow jàngaluñ la loolu te yëpp jusqu'ici loolu la ñuy doxal. donc non mais bu dee bu dee feebar buy wàlle la nag nga xam ne même boo ñàkkul mu a morom. même même bu dee loolu instant bi règlement bi mooy li mu wax ne nit moom amut kii nii obligatoire maintenant nag mën nañ trouver d' autres yoo xam ne peut être boo bëggee def li faw nga def li ainsi suite mais je pense mooy boo bëggee tukki foog faaw faaw nga ñàkku wala boo bëggee dugg sa bërëbu liggéeyukaay faaw nga ñàkku mais ce n'est pas efficace li gën a efficace c'est nous dans une démarche d'explication par euh, pédagogique mhm. expliquer nit le pourquoi parce que n'y encore une fois faut pas qu'on sous-estime leur capacité à analyser à interpréter mhm. Quand on leur donne les bonnes informations ki koy porté xam li muy wax su boobaa dinañ gis ne nit ñi dinañ changer avis par rapport ak situation yi ñu am li ko waral li mooy yaa un vide qui est là mhm. même les personnels de santé yi nga xam ne ñoo waroon porté le message instant bi am na si ñoo xam ne amul les inform les bonnes informations d' accord porté quoi voilà je je je jërëjëf docteur Amadou Sow professeur lan nga ci tàggoo non félicité docteur Sow et wax na c' une communication qui est très responsable et aimée parce que en réalité dafa am mhm. point bi nga xam ne c'est li mu wax am solo gis nga euh, les gens parlent de visa vaccin c'est vrai ñu ngi wax mais gis nga vaccin muy médicament nit ki boo jox da cette fekk mu am consentement nga expliquer ko bénéfice risque ak lépp lu ci nekk wa do yom parce que tay bo né tay kuy tukki di nga wara jël vaccin par exemple mais Sénégal bu bu né euh, ñi ciy tukki. Ah, ñi tukki bariwul de waaw ku leen koy jëlloo. waaw loolu dëgg la pour mu jall da ngay naxante ba expliqué li ci am lépp ba nit ñi xam ñu nangu ko. waaw et c'est pourquoi moi le conseil lui. ce que j'ai entendu aujourd'hui. Mm-hmm. lui il communique continuer à communiquer sur ça mhm. bañ leen a jaay doole bañ leen a jaay doole. bañ leen a jaay doole professeur.